ba tey mbokki juddi di mbokki taalib yi yéen ñi xam ne saa ne yéen a baaxoo Waarwi TV duggalal la leen marché Ocass gis ngeen jigéen dafa nekk doon jigéen di ndaw di yaay ba pare nag da dajale ay moroomu jigéenam jël leen di leen liggéeyloo di leen fay ku ne sa ñaq wa nga xam ne am nga ko ca bërëb boobu mu la koy jox ñu mën koo wax jigéen joo xam ne entreprise la yor ndax lu mat 40 40 personnes ñi ngi ci ñi ngi foofu nga xam ne fi la nekk moom soxna Maguette gay di liggéey liggéey bu mucc ayib liggéey liggéey bu sell te boo xoolee jëmmam ji da nga xam ne war may dëkk bi nga xam ne Serigne ba Bachir bëgg na ko moom la soxna Maguette ma indi ci dëkk bi sell bii di tubaa di liggéey liggéey boo xam ne nag soxna Maguette comme ni mu ko waxee di tàllal loxo ñëpp jàppale ko ah que di liggéey di jigéen di ndaw te gisoo lenn loo xam ne jóge na ci fenn ñëw ci yow dafa metti te li muy soxla tamit dégg ngeen ko wax na ko ñu jàpp ci nag képp koo xam ne rek yaa ngi ci réew mi nga jàpp ci soxna Maguette buñ ci jógee soxna Maguette ba tey nag demalaat na leen ci jeneen jàmbaar joo xam ne mi ngi ci dëkk bu sell bii di Touba nekk fii ci dëkk bi moom di jigéen liggéey liggéey boo xam ne boo leen ko xoolee danga xam ne liggéey bi jom rek a tax mu koy def mais barewul lu doon gis jigéen ñu koy def kon sëñ Sané ma ànd ak sëñ Basiru si la ñu dem Daaru Marnaan xooli soxna sa fa nekk soxna Xuja Sekk lim leen indil asalaamaaleykum ki naa leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ñaanal jàmm te ñaan jàmm yàlla moom jàmm yàlla mu yàlla boole defal jàmm ñëpp mbokk réew mi yëpp am jàmm àdduna yëpp am jàmm suñu Touba Mbacké bi tamit am jàmm mais Khoudia Seck la maa ngi dëkk fii ci Darou Manane liggéey moom amul góor amul jigéen gëm sa bopp la rekk ndax ku ne xam na ne liggéey bi góor di liggéey su ko jigéen liggéey dina metti waaye nag kenn ku nekk soo amul pexe amoo loo jàpp te bëggoo sàcc bëggoo ma yàlla foog kon nga daan sa doole liggéey loolu rek moomu ci dugal waaw dinañ wal dinaa fi soq dinaa gar sangal tamit loolu laa fi liggéey sagal it daanaa ko def ndax su gerte amee damay sagal su ma xëyee aw ma wal damay dem wal sama gerte daal di taal su ma taalee ba mu suus may jàpp wut ku ma woo mu jàppale ma may tibb mu di ma defal ci machine bi suñu tibbee ba def ci machine bi moom mu dem man tamit may kirij ba keroog nga xamante ne am naa ak wal su ma amee ak wal daal di arrêté kirij ba ñëw continuer walal kooku su demaatee tamit mu nekkaat ci sagal ma waaw léegi léeg ma am ku ma jàppale léeg-léeg man ko maa fi ne ndax liggéey bi li tax aw ma koo xamante ne mën naa fixé ne man dafa may jàppale bët bu set liggéey bi moo demewut noonu day nga bëgg a fay facture bëgg a fay ki nga xamante ne ni moo liggéeyal te doo matal sax facture bay mën a fayaale kooku moo tax liggéey moom loolu moo tax léeg-léeg du may am ku ma jàppale léeg ma ma jàppale waaw gerte gi tamit dafa seer ndax gerte xott juróom benn juróom ak juróom-benn fukk nga bëgg koo jël koo jëlaat ko sa bopp doogawul bi di ko waat di ko segal boo noppee da doo ci génn moo tax waaw damay soq ku indi ma soqal la même man it damay jënd prep di ko teg su ma soqee ba pare ku bëgg soq boo ñëwee ma jaay ma même tamit dama koy jaayaale kuy jënd kuy boo ñëwee ma jaay ma moom man ba ma dalee liggéey bi ba tey mësuma cee gis kenn koo xamante ne nii ñëw ne ne ma jàppale la ci li nga liggéey financé la ci pour jàppale la ba nga am loo liggéeyee mbaa loo déparé mu si am lépp loo xamante ne daal lu ma ci def sama doole la ak lu ma sama borom kër gi dimbalee daal ma mën cee jàpp mën koo defaree. waaw léeg-léeg nga am ko ci ndax liggéey moom xam nga ne mënut ànd ak togg ak yàq di dem marché di togg ak a yàq ak di fóot bëgg a bale bëgg a raxas. loolu moom ku ne la it mën naa ko bu loo nee mën naa ko it am na leneen lu muy daj ci biir loo xamante ne du ko mën a nettali ay bañam ndaxte xam nga ne liggéeyu lii rek dafa metti soo wàccee sa yaram yëpp di metti nga bëgg ne damay naan fóot su ma xëyee suba teel wàcce fóot mi doog a del siwaat ci wal bi xam nga ne loolu moom ku koy jëf kenn ku ne tamit metti na ndax su ma amoon it ku ma jàppale daal dimbale ma ba ma mën a am fii di fi liggéeyee am ku ma jàppale te sama kër di ma fa liggéeyee li ma bëgg a liggéey tamit ba tey dina ku ma jàppale daal ci lii nga xamante ne ci laay liggéey matériel su ma amee matériel daal dinaa mën a am ku ma jàppale mu di ma dimbale ma mën a def ca suma kër la ma fa war a def dina naa ci dund loo xam ne neex na ma su facture jotee daal su ma ci amee loo xamante ne maa ko moomat sama bopp maa ko liggéeyal sama bopp loolu moo ma ci gën a neex ndax soxla faj sa soxla te laajoo kenn dafa neex loolu moo ma ci gën a neex li ma ci gëna a nag mooy liggéey ba nga xamante ne facture ñëw na te ëmma lenn lu ma ko fayee te kenn ku nekk day xalaat ne man mi maa doon liggéey te li ma ci dajale mënu ta fay facture biñ ma indil moomu ci gën a métti ndax maa ngi ci sonn yàq sama liggéey ca biir kër ga dematuma ci xew dematuma ci fenn te li may liggéey mënuma cee fay facture courant bi daal moom moo ma ci gën a métti moom pour ñu wàññi loon courant bi daal ba mu gën a yomb nga xam ne li ñuy liggéey dinañ ci mën a am dara nu amee ku ñuy jàppale dinañ ci mën a génne liñ lay jox jox la ko tamit loolu moom dina baax li nga bëggoon li ma bëggoon nga laaj ñu ko mooy ñun jigéen ñi mel nii te yore machine di ci liggéey ñu man ñoo dimbale ñun ñëpp nag ndaxte kat sonn nañ te amuñu fenn fu ñu ko jooytoo ndax ñun mënuñoo politique xamuñu politique bëggoon nañ nag ku ñu dimbale ñun ñi nga xam ne xamuñu politique te mënuñoo politique ku ñu jàppale bañ mën a liggéey ci suñu biir kër di jàppale suñu njaboot ji di jàppale suñu borom kër yi ndax kenn ku ne xam na ne dépense metti na di ko saxoo bët bu set bu ci boole say soxla soxla ak tamit dina metti bu daal pour ñu jàppale ah, bi da moom jigéen yi moom xam nga ne moom jigéen yi moom ñëpp am jom ndax soo xëyee marché danga naan jenn jigéen desul marché soo demee jumaa ji danga naan mag ñu baax ñëpp a ngi jumaa ja di liggéey soo duggee ci place yi tamit place boo dugg boo duggoon benn place góor soo duggaatee yeneen ñetti place ay jigéen nga jay fekk nga xam ne ñii ñëpp daan son seen doole moo leen tax a lu ñu am bëgg liggéey tedd te duñu sàcc duñu mooy yàlla loolu rek lañ ba tey yéen nga xam ne saa su ne yéen a li nga xam ne mooy eh, Waarwi TV nekk alul Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rassoul nekk ci dëkk bu sell bii rek di wane saa su ne li di neex ca la ñuy dox ci li ngeen di bëgg ca la ñuy ne waaye 8 mars bii nag tey macha allah xool ngeen soxna seen jógee muy soxna Khoudia Seck yaram dafa daw képp ku xool liggéeyam bii muy liggéey ku am xor rek tey sa yaram daw na képp koo xam ne tamit bëgg ngaa dimbale nit ndax damay dégg ñu naan Touba ay formation di fi ñëw ay financement di fi ñëw yu bëri bëri di fi ñëw mii ñii kenn gisu ko ñoom ñëpp seen doole bopp la ñuy liggéeyee ku ci nekk rek sa borom kër moo lay jàppale ak jàmbaar yi nga xam ne ñoo la gisal sa bopp bëgg la di la dimbale ndax jikki dëkk bii kat jigéen boo fi nekkee di liggéey yàlla suñu borom moo lay teg loxoom te teg loxo bi yàlla moo gën a wóor moo lay jàppale borom dëkk bi sell bii si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul tamit jàppale la na rawatina sëriñ Muntaxa Bachir mii moo waral ñaari jigéen ñi ñu leen indil ku ci nekk rek la ngay liggéey métti na soxna Xuja di jàmbaar moom it macha allah nekk fii ci Daaru Manaan jàmbaare lool. am pësteef lool gëm boppam lool nag xam nga ne wax dëgg yàlla bariwuloo gis jigéen di wal mu metti lool mu soxla nag ay ndimbal xam nga saa sune su 8 mars dikkee da ngay dégg ñuy wax mais ñun gisuñu li ñuy dénk nag ñi nga xam ne moom lañ teg ci dëkk bi soit ñun dénk suñu réew wala ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bu sell bi jiite jigéen ñi ak léegi ñuy wàcc ci terrain bi di xool jigéen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey te politikuñu ndax dafa mel ni jamono ji ku politique gu rek doo bokk doo bokk te pourtant de li ñuy joxe ñëpp ñoo ci bokk yem amul kuy politique ak ku dul politique. li nga xam ne dugg na ci dëkk bi mu ay financement di ay liggéey di ay matériel yoo xam ne dañ koo jaglee jigéen ñi ñu ci gëstu façon jigéen ñi te des na yeneen jigéen yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi sell bii di Touba te nii la ñuy liggéey mu nekk liggéey bu metti soxna Khoudia comme ni mu ko waxee facture yi dafa cher matériel bi muy liggéeyee. naam ni mu war a am ci matériel dëgg amu ko ñoom ñaar ñaam ñaari jigéen ñi ñu tànn tey nag ci spécial 8 mars muy su ñaari soxna yooyu tey lii leen leen indiloon ñuy sàkkut ñu dimbale leen ñuy sàkkut ñu jàppale leen ñuy sàkkut ndax li ñuy laaj dañ koo moom ndax lépp lu ñuy joxe ci dëkk bi jigéen ñi dañ ci am cër lépp lu ñuy wax ci réew mi sax laay wax jigéen ñi dañ ci am cër kon ñu dikk saa su ne rek ñuy xool ñi ko yelloo ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi di liggéey ñu leen di jox ñu liggéeyee ak matériel bu liggéey te bañ di ko jox am na ci ñoo xam ne buñ leen ko joxee lan koy lan leen koy joxee du bokk ak la ñuy def te fii dafa mel ni ku yënguwul ci mbirum àddina muy politique bokkoo waaye waa dëkk bi ay jigéen nañ fi macha allah Sénégal sax laay wax boo duggee ci dëkk bi yaa ngi gis ñii ngi jaay kafe ñii ngi rabbi sër ñii ngi ca lujum ñii ngi fu ne parce que Touba dafay dëkk boo xam ne amul usine ku xëy rek marché nga jëm te liggéey doole dafa métti ba tey toppaatoon nañ leen dugal leen marché jigéen ña nga xam ne ña nga fa macha di jaay ay sër di jaay ay ay yu weex di liggéey mandaatal sama cameraman bi nga xam ne macha allah lépp loo xam ne soxla nga ci dëkk bi boo àndeek sëñ Saane da la koy indil wonal la ko kon ñu delluwaat Ocass wal leen jigéen ña fa nekk di liggéey. Ah, soxna si maa ngi lay nuyu bu baax ñu ñun jigéen waa Touba ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant ñun jigéen waa Touba nag liggéey dong lañ xam ndax ñu ngi ci sër yi ñu ngi ci robe yi ñu ngi ci garambu buy lépp ngir bëgg lu ñu am rek. waaw bëgg nag ñu dimbale ñu te yàlla tax. lii ñaw loxo waaw lii ñaw loxo la ñun moom lañuy liggéey lii ay sër la waaw lii ay grand bu la ñun lii rek lañuy liggéey toog fii lii ay grand boubou la moom la ñuy liggéey moom suñu liggéey fii la ñuy toog bi moom boo ko defaree grand bi moom bu fekkente ne dañ koy yóbbante Dakar mën nañ koy jaayee 15000 mën nañ koy jaayee 10000 waaye bu dee fii la. ay junneeg ñeenti téeméer junneeg ñett wala junneeg téeméer moom lañ ciy fay bu dee ramasse la moom la ñuy ramasser di yóbbu di jaayiwaat ñun nag lu ñu am doom moo ñu tax a toog ndax waa day am sër am musóor ñun jigéen waa Touba xam nga ne jom rek lañ feese dell waaw ndax foo ñu fekk rek ñi ngi liggéey daan suñu doolee ngir sëñ njaboot. li liggéey bi métti. waaw liggéey bi métti na torop métti na méttiwul laa ndax bu dee wuñ bi pilote bi ñu ngi koy jëndee benn 500 bu fekkente ne dañoo jënd paquet bi ñu ngi koy jëndee 4500 kon xam nga ne loolu seer na léegi nag bu fekkee dañ koo teg nii ci marché bi daanaka presque wanteer rek lañ koy def ndax dañuy bëgg luñ am ndax suñ njaboot waaw ndax njaboot yi góor ñi sonn nañ waaw jigéen ñi sonn nañ ndax lu ñu am rek moo ñu tax a toog ci marché bi waaw soxla nañ moom wax dëgg yàlla ku ñu dimbale moom ndax bu ñu xëyee fii lañu nekk man dama daan toog di ñaw da jaayaale waaw looloo tax ni mm. ngi lay nuyu bu baax. soxna Daba Ndiaye. soxna Daba ñu fekk ci moom nag jotaguñ ci nangu nañoo liggéey la waaye jotaguñ ci set bi waaw mm. ah, jotaguñ ci moom te ay jigéen la ñu nangoo daan suñu doole suñu xëyee. dañuy nekk ci bi daal sunu dool ci boo bëgg nag ku ñuy jàppale ndax ci jigéen amul dool waaye ku ñuy jàppale ñu dem ndax ñoo suñu njaboot jàppale suñuy borom kër suñu borom kër nekk ci àll bi am na lu bari ñun ñoom ñoo koy def kon na bëgg nañ ko ñuy jàppale bu baax a baax ndax te ñun dafa am ñoo xam ne dañuy jël di ñëw suñu kër waaye ay naxi neen la de gis mën na maa wax tur bi sax liñ waaw jur wax day ñëw suñu kër di ma composé comme ça ni waaye loolu ay nax sama ndax man dama ay militants yu bay topp sama ginnaaw waaw ñu ñëw sama que jigéen yéen nangu ñu leen di politiquer. non ah, nangu ndax ñu ni def ndax ñoo bëgg a daan suñu doole rek loolu moo ci jaaxal waaye li ñuy wax lépp du mën a nekk. non non gis nañ suñu bopp man ni ma ko waxoon ñëpp gisatu ma ñeent quatre personnes ànd na maa ngi waaye gisuma dara sama bopp daw naa ba bëgg a dee guddi ak bëccëg suba ak ngoon waaye gisuma dara samay militaires yi may àndal suñu may mere ngir lu ma def rek dañ naan loolu dina nekkul te ci ñoom la ñu nag bu ñu gisaatee feex lu mën a faa dugg ñu dooleel ñu foofu la ñuy dem ñun soxna Daba Ndiaye waaw. jàngat boo ak jigéen nan la war a taxawee. jigéen ñi war a taxawee seen biir kër toppatoo sa borom ko toppatoo sa njaboot nangoo liggéey daal sa doole loolu daal laa ci gis moom wax dëgg yàlla te ku ñu ci jàppale la ñu dem ñun jigéen ñi Touba sonn nan lool nag fu mu toll nii daal di ci gis ni suñu bopp jërëjëf waaw ba tey mbokk yi eh, eh, lii leen leen jëlale waatoon ne leen marché Ocass ndax mooy marché boo xam ne boo taxawee xool foo gis benn góor rek xamal na ñetti jigéen ak jawetam nangoo liggéey rek am jom bëgg lu yóbbul seen ak njaboot ndax àdduna si fi mu toll góor baax na jigéen baax na dëkk bi nag daa na ni xam loolu di ko liggéey di sàkkut ñoom ni koy waxee ku ne dégg wax ndax ñiy wax ji lépp kenn néewul am naa ci financement sàngam kenn néewul am naa ci nàngam ñu dellu siwaat xel yi nag te xam ne 8 mars ren bii daana mel neneen waaye ren yëngu-yënguy jamono ak suñu dëkk bi ni mel ñuy sàkkoot jàmm ndax ñun da jàmm rek lañ sàkku te jàmm rek lañ bëgg tey ndax jàmmi réew mi mooy jàmmi fépp di jàmmi Sénégal jàmmi Touba li ni ñaan nag ku ñu ëpp doole yërëm ka nga ëpp doole loolu rek lañuy ñaan tan bàyyi yàq ndax yàq benn baaxul benn yoon képp ku nekk rek yaay nga ñun ñi ay yaayal yéen ñi jàkkaarloo ñun ay yaay ngeen yéen ñu ñuy déglu tamit ay yaay yéen ñu wax ak xale yi napp leen ñu delloo si xel yi tañ ba yàq gi ku ne mën ngaa wane nag la la naqari waaye yàq gi daan ñu wàññandiku ko bu baax a baax a baax tan góorgóorlu tamit suñu ndaw réew ndaxum réew ndaw rekk ko yor ndax réew moomu ndaw ak jigéen ñoo fi ne te boo xoolee wax dëgg yàlla dugg ci marché Ocass nga gis ndaw ñi fi nekk di liggéey di lu dëkk bu sell bii tubaa naam leen gën a sant yàlla gën sant yàlla bu baax a baax te sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul li mu defal suñu dëkk bu sell bi kon nañu gën a góorgóorlu te gën a gën a gën a moytandiku te moytu coow yàlla yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci àddina sépp def ko ci réew mi def ko mboolem foo xam ne rek nit a nga fa jib jullit jib taalibe yàlla defal ñu jàmm ndax lu du jàmm jàmm rek ko kon nag lii lay indi woon spécial yu massa ci Waarwi TV di leen ñaanal suñu borom mayaat ñu jàmm ak xéewal ban taxawaat fii 8 mars 2022 incha ngi jégalu nag baat bi xam naa soj mi la ak yooyu mais ñu ngi koy jégalu yéen ñi jàkkaarloo ñun bëgg leen neex moo tax ñu forcé tey liggéey si ndax tey bisu jigéen ñi la di sant soxna Awa Ndiaye nekk fii ci kër gi mboolem jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci kër gi soxna Awa ak mboolem jigéen ñu fi nekk soxna Jóoba Mbàkke tamit demaloon seeti ko 8 mars soxna Jóoba Mbàkke macha allah nekk suñu yaay di sant bu baax tamit soxna Maam sa Mbàkke di sant eh, ñëpp nag di jaajëfal sama yaay boobu soxna Aminta di la ñaanal gudd fan ak yér wér mbay képp koo xam ne rek yaay nga ci dëkk ci Sénégal xama ne 8 mars bi yaa ko moom na ndaw ñu gën a góorgóor ñu roy ci suñu waajur jigéen yi ndax kenn ku ci nekk rek am nga ko koo xam ne boo ca royee doo juum na góor ñi nit ndaw ñi joxe cër waay mag ñi yërëm gone yi te bu la yàlla dénkeem réew na nga gëstu sa askan te xam na askan wi ci lan te xam na ñoom ñoo fal ñoom ñoo lay folli te soo folli ko waatee ci ñun ngay dellusi yan yàlla defal jàmm kay doon na njiitu réew yàlla moo ko tànnal boppam yan yàlla tànnal njiitu réew lu gën ci ñun kon ñu leen joxe rendez-vous ba 2022 incha allah ci spécial 8 mars di jaajëfal sëñ Saane ak sëñ Bas ba jërëjëf ba kon nag di sant di gërëm suñu jéeg bi ne ci kër gi macha allah di def yu baax soxna maam jaara kere yàlla di ñu defal jàmm sàmm ñu yir ñu musal ñu ci làmmiñ ak balaa ak dàqali ragal ñoo dina ñeme yàlla def ñuy gën a gën a gën a bëgg yàlla di gën a sant tamit yàlla bu baax a baax di sang sang julli sang sang yi Seydina Mouhamed te ñaane sëriñ Mountakha Bassirou yàlla fi yàlla yàggal te wéral ko ak Waarwi TV dara dootu rek ci te lu leen bëgg xam ne di ngeen ko xam kon ba 2022 incha allah ci barke Cheikhul Khadim ci 8 mars